sonal mbokk yi combat baa ngi dox ci diggante Ñagas 2 ak Caatu Waalo Ñagas 2 Caatu Waalo Ñagas 2 moo ñëwoon ginnaaw ngeen moo ngeen lu bële li teg ci moosu bu xonk bi ñagas de door na léegi ñagas defoon ndànk ñagas de defoon ndànk ñagas de caatu waalo door na ko ñagas de sànq bi ma ko laajee nee na ma combat bi moo gën a yomb ñu ma jógee caatu waalo door na ko ñagas fàq nañ ko fàq na ko daan na war daanoogul ndànk waaw ñagas de caatu waalo ñagas de caatu waalo eh xale yaa xeex ñagas de caatu waalo dafa ndànk ki nga bëre du du cuune dina ko ko doomu daanu ñagas de caatu waalo ñagas da koo bëgg a jël tànk ñagas de caatu waalo daw na jël ko ñagas de caatu waalo ñagas jël na tànk ba koy daan. sakk na ko ñaga sakk na ko ñaga sakk na ko jàpp da koy daan da koy daan da koy daan daanoogul doyel daanoogul da koy daan ñagas dana daan na caatu waalo ñagas dana daan na caatu waalo ñagas dana daan na caatu waalo dañu wax ne mbay mi ngi Ouakam Junior ak Tidiane ñoom. mag ñoom Alboury mi def ko ma ko jox Alboury laa soxla yomb ni ñu wax ñoom li ma gëm dir fu wax ñi billahi wala lam dama see bokk ko liggéey si yëpp ñu siifu dama leen a daan ku ne bu ma daan boobu daan naa la gars yi bëri li ma sëñoo cinq combat cinq victoire cinq victoire léegi fan nga jëm ma jox Alboury laa soxla Alboury Alboury li def ko dama xam ne su ma xeexee sama yaay dafa ne tey xeex moo tax nee na ma bul dóor rek bul doomu jàmbur buy gaañ. waaw mais waa ji ne woon bëgg maa rafet moom la yëngal moom la yëngal moo tax maa yëngal quoi. ku mu del sax moom bët bi mu soog dama kër bu taa bi doon. daanaka day xaj wala. day xaj day xaj.